meloom yaa sell cër yaa rafet ciy mustafaal mustafaal muxtaar yàllaal bur yàlla ne sàkkuloon musloon ca gaay ya weyoon dooti sàkk du musloom wóor na yàlla sayyiduna Muhammad moom gàttul guddul xeesul muulul yaram war a tax cëram yëpp mat sëkk buy dox sut la yàlla Mustafa Mustafa moom daa ma wul deful am yoon rëyul ni fëtëx dooxul waxul setaxul setaxul sëggul fayalaaw sayyiduna muhammad muhammad moom rinkul la sunu noojul gangul tayal ya sewul kaloor ya papa yow moo jënd laaw Seydina Muhammad moo jekk ab taxawaay Seydina Muhammad moo jekk ab taxawaay day kenn yeneen tu xasab rem ju neex jaay njamal yàlla nu la ajaalu yàlla waa si ñun ma ko dar ma ko dar ak tuñu jekk ya ak mu ñaay ba yàllaaw musawa mi jëhëmbay wa deelu bay sa feeru badrin ya din ndoxum ba ñang maag walaak baatam ga yallaaw sayyiduna muhammad yéenam sëqëya ànd ak njëriñ fa di melax li xam yu ratax yaa leraay ga yallaaw boppam bu mbur ngolu baa nga fa yu rëy ya gëtëm ya muy wëlbati lamsal fa yàlla Mustafa mi ruk bakkan gi ne fu lay saf na daal sikim bu jekk baax ak faak faak diggante yaari wa yaar xaatima ba ñu taf ci diggu ndoddam muy saf tampi yàllaw su fee nu jekka ya ak tin xam yaatu ya ak dajar yu tal yaa kàllooram yooye yàllaw sayyiduna Muhammad doxi mu jekk waan ak ndaagam la tëpp ma woon doxiinu ramatul lay dox bir na yàllaaw def la ñu nu màggal Seydina Muhammad moom léebul bëroo jul gawul teele sew Seydina Muhammad Seydina Muhammad baatam loxut sewul señul fay laaw Seydina Muhammad diggam lu mu yor lu pam yu ak beeram ya laaw loxoom yu jëkk ya ak waaroo loxoom yu jëkk ak waaroom yu saw ya ca sax yaam yu ya lee alaaw mu sawaa mi moo ne xuban ku nu yoog yonen di xeeñ ba ëllëg day saafante ka jàmmante ka yàllaaw sayyiduna muhammad moom amul ca gaay yi yoon amul ci gaay yi fi des am ci ca ñëy bëgg ñëw insha allah Cheikh Mouhamadoul Fadilou def fi ni nu màggal sëriñ